aqui. Vem. ok jàpp na ah ah ah ah ah fan la metti fii la ok ah ah ça fait mal il faut appeler un médecin ça fait mal ça fait mal. médecin te ma nekk fi xaaral ba ma pare yow benn douleur dootoo ko yëgati. ah. yow yaa ragal. am na pommade anti-inflammatoire. bu jot sax bisuma. yow yaa ragal rek mu naan médecin. ah fii la fii la. bul laal foofu il faut un médecin bul laal mi commencé na il faut un médecin.

Bonsoir. Je peux vous aider Merci. Cathy Oui. Et ça Tu peux le prendre, Ça va Ouais, ça va. ça va jeune homme mais mosuma woon xalaat sama àddina xale bu jëkkee nii rafetee nii dina di taxawaalu ah oh là là. mais yow depuis tout à l'heure je t'observe tu es vraiment lourd. man waxuma ak yow kii laay waxal. mais laisse ma copine tranquille. yaa non yow dinaa la bàyyi mais moom du ma ko bàyyi mais wuy ma bàyyi ma eh, fay lépp bugguma soxla ma sa xaas yow la dama mën a bàyyi xanaa eh, eh, ah. <laughs> yaa ngi jënd pâte dentifrice kii mi ngi jënd lu mu ndekkee est-ce que doo leen li may bañ a tudd. ah mais yaa ñàkk fayda di ñàkk fayda la. ñii rek ngeen di def jigéen boo leen gis teg ko caga. machallah c'est normal ku màggee ci kër caga koo gis rek teg ko caga di ngay ñàkk fayda yëpp ak sa chemise bu rose. déedéet dañu yaakaar ne ku ñu gis rek mën nañ ko ëri tëddee ko wante tey de bi yamoo nga xam ne doo tëddee kenn ku la xool xam ne sa foon digg di nga ñàkk fayda sa veste bu ëpp cum dama la sa dox kaña bi mais am ngeen xaw de kii ku bon la ak ay lunettes am <laughs> am nañ ko de ñu xamul dinañ ki moo ñàkk fayda moo yéen ay jabaate ku ñu gis yaakaar ne cagal la mel ni uwaa bàyyi ko rek Sénégal nii rek la def dañuy bàyyi problème seen mbir kër ñoo nekk ci biti bëgg a lijjanti problème jàmm yaanaa ma enfin mais yéen xanaa ay nouveau type de sista ngeen ñaata la bul nooy ah, gentil on va arriver tout de suite doucement hein bul nooy doucement voilà gentil gentil on est déjà arrivé doucement doucement doo suma gentil bul on est déjà arrivé bul gentil gentil on est arrivé doucement doucement oui oui oui là on peut respirer maintenant on a noyé

suba yow benn douleur dootu euh, ko amati d'accord parce que maa aye. Mélissa. merci beaucoup. nice. Mélissa il nga ñibbi seen kër ba suba quoi. nga il faut nga ñibbi seen kër ba suba. man ma ñibbi xel xalaatu ko yow ma dinaa dem bàyyi def ak état bi nga ne mais non du tout. fan ngay fanaan. xanaa fii sawe fii laay fanaan yow da nga ma lay fàttali ne man sa jabar laa ma su fi que mon devoir d'épouse Boubacar ñibbiwuma de fii lay fanaan si sa metti nga torop de bàyyi ma lampe bi s'il te plaît Boubacar éteins la lumière s'il te plaît pour ayé. Ah. Ok. C'est une fausse alerte. Ça c'est pas ta carte simple. Il y a comment mon vote a diminué. Ça en tout cas c'est pas Dakar simple. Ça là c'est Dakar DMD. Ça c'est pas Dakar simple. C'est Dakar DMD. Il y a comment mon vote a diminué. Ça c'est pas Dakar simple. ngeen ko tax ma jóg mbëggeelu yërmande moo tax a jóg man waaw waaw eh, eh. mbëggeelu caaxaan taxu ma jóg man de waaw

dem nelaw ma ma ngi ci wanag bi rek. waaw dëgg la. sama biir dafa daaw daaw daaw daaw daaw. non bul reewee. <laughs> damay reetaan ah, kay. cinq fois. biir bi mi ngi yooxu ma ngi ci toilette bi rek liggéey rek amul frein. waaw ah, loolu moo lay wane nag tool bi wàcc na. Ah, <laughs> ah peut-être c'est ça parce que maintenant douleur douleur bi yëpp jeex na léegi. waaw waaw. baat la bu baax kat nelaw ma dara ah bon jàpp sa loxo yi dama ko teg rek man mii <laughs> déedéet kay yow est-ce que nekkoo woon di gént gént gént ma de yow de raay sax def nga ma ko yow nag kat danga doon gént raay billaay da nga de ah bon da nga de asta nekkate man yëguma ci dara. nelaw yaa metti woon. kon de yow sonal naa la yëguma loolu sax. te mënoon nga bàyyi ma togg de. non tamit nag yaa ngi invité sa kër ba pare xanaa togg sa la moindre des choses rek ma toggal la. non fii moom sa la dama bëgg nga nekk à l'aise. Mhm. je suis à l'aise moom. mais fàttali war a dem seeti fii boobu. loo xam ne moom laa retenir pour salon. fii ko bu ñu doon tuddee sax Lisa. waaw Lisa. man kooku bi neexuma dara. lu tax pourtant elle est très sympa. en tout cas turam moom. elle est sympa man dama ko gis rek man mu sédd yoon man vraiment. takk suuf bu Bakar bi. nii xaratu doon. waa kii lu muy ree nii loo bañ bëgg ma man li lu bëgg bëgg naa ko chéri naa ko sax su ma teree ma bàyyi ko man yow rek laa Ndeye tu sais nelawuma mais vers trois heures du matin j'ai dormi un peu mais dama gént. gént dama gént. ma jàmm la. jàmm la Ndeye on était dans une maison nous deux avec quatre enfants. tu étais ma femme. Mm. les enfants étaient en train de s'amuser toi tu étais en train de tendre mais Ndeye moi était en train de lire le journal mais Ndeye c'était merveilleux je te jure c'était merveilleux je te dis c'était merveilleux faut penser à ça quoi. ça m'a choqué c'est pourquoi je suis venu te voir maintenant. waaw. dama lay laaj. Hmm. Lisa fi la fanaan si kër gi wala fanaan. kan. Lisa. Lisa. Hmm. bonjour. bonjour. ça va. soxna euh, soxna si yàlla bi nan la. Lisa yow xamoo ma. yow xaw ma la. yow da ngay dof dof lu wala lan. ah. yow xamoo ma. mais xamoo ma la. yow kaay ma la yow yaay kan. Hmm. yow yaay Lisa bi nga xamante ne yaa tas say Boubacar ak Katy nag waaw yow bu ko ko laaj laaj ko man. ka mooy Katy. mooy jabaru Boubacar. yow yaa kii tas say Boubacar ak Katy yow la. Katy mooy borom kër gi mooy jabaru waaw yow yaa ko tas yow mii yaa ko tas. Boubacar yow Boubacar yow Boubacar yow da nga am jabar bu tudd Kat. mais tey moom di ba sangu ba pare ba. maa ngi lay xaar ba